bonsoir à toutes et à tous euh, dalal nag jàmm seen émission le rendez-vous de Sénégal 7 le rendez-vous de Sénégal di émission bu leen di accompagner seen euh, site internet préféré du lundi au jeudi di traiter bépp thème d'actualité boo xam ne rek euh, laal na dundalin Sénégal yi wala sax yeneen peuples yu nekk un peu partout ailleurs comme ni ñu koy defee bu ñu fi amee thème yoo xam ne rek dafa laal ci ay sujets dañ fi dalal koo xam ne rek sujet bi da ko laal directement wala sax xam da cee màcc loolu moo tax aujourd'hui plus le plaisir euh, de recevoir euh, sur ce plateau Abdou Karim Gueye coordonnateur du mouvement Nitu Dëgg Valeur salaamaaleykum Abdou Karim. waaw ah, maaleykum salaam euh, ma sœur maa ngi lay ziar bu baax a baax. Mhm. di la nuyu di nuyu suñu mbokk internet yëpp. Euh, di ñaan yàlla rek euh, bañ fox lu ñuy xeebee. Mhm. merci beaucoup Abdou Karim ñu dugg suñu vif euh, du sujet. Mhm. ñu doxee par rapport ak rassemblement bi nga xam ne amaloon ngeen ko dimanche bi passé ànd ceeg ñi nga xam ne ñoo tuddee seen bopp ànd sàmm jikko yi te yaakaar naa ne yow si membre yi nga bokk. Mhm. mu nekk une forte adhésion boo xam ne sénégalais yi ñëpp uyu uyu si neen naka ngeen tuddee rassemblement boobu ak tamit c'est le pourquoi. waaw déjà dañuy dañuy remercier sénégalais yi. ma parce que gis nañ ni vraiment sénégalais yi bon comme toujours nag Sénégal musuñu bëgg mu suñu nangu ngóor jigéen. Euh, loolu nag dañ ko gën a biiral gën ko wane. Euh, keroog nag boo xoolee vraiment sénégalais yëpp ñëw nañ wuy suñu ñu. massivement vraiment da ngay gis ni te li ci gën a doy mooy euh, ay nitu diine rek ñoo fa nekkoon nekkoon ay du nekkoon problème mu âge li ma gën a marqué maa ngi koy wax sànq rek Al Amin Dramé ma ni ko dama gis ne Oustaz Matar Sarr aaye bu mu tàmbali rek ful bi ñoo koy yeggali. loolu dafa te ful bi ay jeunes ñoo fa nekk. vingt cinq ans vingt et un ans vingt ans dix huit ans trente ans âge yooyu ngay gis quoi. amoon na ay mag mais mag ñi bariwuñu donc la jeunesse sénégalaise maa ngi gis ni léegi diine bi dañ ko commencé gën a ñi dund diine gën nañu bëri gën nañ comprendre ni dañu war a taxaw pour diine bi. donc léegi loolu nag bon nekk na loo xam ne ànd sàmm jikko yi moom dafa yàgg. bi ñu ko créé dafa am loo xam moo jut ànd sàmm jikko yi sax dafa nekkoon collectif noir l'homosexualité. ñu ngi woon ci euh, bi góor jigéen yooyu doon sëy Kaolack. doon ñaxtu di expliquer bi ko Macky a defee ministre de la justice parce que bi defaan nekkoon doon nekkoon mbaaw ci période Abdoulaye Wade bi alors bi ñu defee manifestation yi ci góor yi dañ a dem ba mu indi sàmm sàmm ànd ànd jikko yi mhm. euh, ba partout Sénégal euh, ñëpp imaam yeeg borom daara yeeg nitu valeur yëpp di ci bokk di participer ba tey mu indi euh, dimanche euh, dimanche passé di li nga li ngeen gis noonu. Mm-hmm. donc donc lii li mu li nga xam ne jël nañ ko ci mooy euh, mooy peuple bi pare na léegi nag. moo xam nag suñu gouvernement yi ñoom pare nañu pour suivre peuple bi ou pas mais en tout cas peuple moom pare na. Mm-hmm. te pare nañ pour lépp pour pour jàpp. jàpp yooyu laa bëgg ñu ñëw est-ce que amoon na ay personnalités de l'État du Sénégal yoo xam ne teewoon boobu les rassemblements wala sax euh, est-ce que yéen invité woon nga aussi euh, à ce que ñu participer aussi. waaw cest invitation bi moom mun naa ni. Euh, gars yi def nañ ci képp koo xamante ne nii. yaa ngi ci yaa ngi ci kilifa nga ci réew mi moo xam takk nga ndombal tànk wala takkoo ko. ils étaient là. non ils étaient pas là-bas maanaam maanaam waa ànd sàmm jikko yi bi ñuy pétition yi fu nekk dem nañ fa. Mhm. approché nañ gouvernement approché nañ ñëpp te Macky Sall il était conscient ni lii luy am la. te ñoom xam nañ ko. Mhm. mais même bu dul dara préfet de sax naa war naa mën a ñëw. Mhm. ndax ci réew la bokk te yaakaar naa ne jullit la wala chrétien la am na valeur am na lu mu gëm. donc kon préfet de sax waroon naa mën a ñëw ci manifestation bi. daal di Mm. c'est pas seulement euh, les autorités yi xam ne ñoo nekk ci état bi ñu fa ñëw ñëwul bari nañ. les opposants. bari na si ñu ñëwul bari na si ñu ñëwul <laughs> mais Bougane Gueye Dany ñeex mu ne ma nga ca te gisoo ko fa. Mm. <laughs> mais bari na ñoo xam ñëwuñu donc ay mbir la yoo xamante ni mënuñu mënuñu la wax ni la euh, lii moo tax lii parce que xeexu góor jigéen aussi dafa metti yombul. mais le président Ousmane Sonko était là il était présent si loolu xam euh, pétition. si am na benn sortie boo xam ne yàlloon indi ay éclairage par rapport mm. Mhm. waaw xam nga xam nga euh, dafa dafa dafa am lu am. Mhm. parce que période bi nga xamante ne ànd saa am jikko yi ñu ngi wut di wut ko pour ñuy signer pétition bi. Mhm. dañ demoon seeti ko ñoom bi ñu ko seeti man ñun dañu voyagé woon dem Touba mais ñoom ñu dem bi ñu demee euh, daf leen waxoon ne moom dafa moom mënul tëb signer pétition bi dafa gis ni loi bi ànd ak pétition bi loi bi nañ ko war a defaraat. comme moom député la ñun loi bi après pétition yëpp fi ñuy mujj mooy jox ko député yi ak loi boo xam ne nga xam dañ a dañu mën a am projet de loi boo xam dañ koy jëbal mm-hmm. jëbal mm-hmm. ne moom tëgg loi bi tëggin boo xamante ni euh, kenn du ci profité suba comme ñëpp gis nañ loi yi ni mel Sénégal nga xam ne état du Sénégal lu leen neex lañ siy def mooy comme loi viol bi par exemple nga xam ne tey eh, da ngay nekk ak benn jigéen wala mu gis la taxal la viol ñu tëj la 10 ans di wër di xool naka la la violé tardé la fekk violé woo ko donc yooyu la bañ mu nekk si loi yi quoi maanaam mu nekk loo xam peut ku nekk ci pouvoir bi wala ko nit mën na ci taxal noonam maanaam ñu vérifié ko defar ko ba nga xam ni en fait duñ ko utiliser di lor kenn mm-hmm. te bu ci góor jigéen amee ñu mën koo daan daan boo xamante ni loi bi aussi intangible ba nga xamante ni tey future génération même su fekkee dañ leen carrément si moom ñàkk si après nag ci lañ déggante man il m'a beaucoup expliqué ma comprendre loolu ma xam ne li mu proposé aussi moo gën a taxaw sax loolu moo taxoon signé na. Mm-hmm. waaw na a mais présence am sax ci ci ci ci manifestation bi signature la. waaw waaw waaw il mm-hmm. uh-huh. mais euh, dafa mel ni manifestation boobule euh, naam sax euh, mun nañu wax ne askani Sénégal lu ëpp si askani Sénégal bi ils étaient présents mais. attise na aussi yeneen problème parce que gis neen euh, ADEOS mu nekk l' association d' aide défense homosexuelle pour l'égalité et l' orientation sexuelle am mm. neen euh, benn recommandation bi nga xam ne def nañ ko auprès euh, ministre bi nga xam ne moo yor wàllum intérieur bu réewum France di François Gérald Darmanin par rapport ak ñi nga xam ne ñoo kii yoon. organisé ñoo organisé bi les manifestations ñu jiital si le professeur Ababacar Mboup. Mhm. jiital si ku mel ni euh, professeur Cheikh Oumar Diagne même le xalif euh, général des Tijanes. Mhm. Euh, di sëñ Mansour Mansour. Mhm. moom tamit épargné wu ko par rapport ak ñoom lu ñuy sàkku ñu ñu ñu ñooñu rek ñu interdire leen accès si réewum France ba ban lecture ngay def si loolu. mais bi de xam nga loolu man pour man Sénégalais yi ñoo desee am fulla rek. parce que ñun tey boo demee France da les femmes voilées c'est mhm. la yàq muuru lan a yàq ci àdduna muuru yow nga da ngay muur say cër. Mhm. ku mu neex na wane ay cëram France dañ ko interdire. Mhm. polygamie France dañ ko interdire. léegi man mënuma concevoir quoi léegi ñoom france yi ñoom dañuy interdire muuru di interdire euh, polygame kenn amul droit am fa ñaari jabar. ñun ñu ñëw suñu dëkk ne dañuy imposer léegi góor jigéen par force. bés mais loolu mooy ñàkk fayda. mais la faute à attention peuple bi ñu ngi jóg mais mais à nos gouvernants. Mm-hmm. à nos gouvernants tey mais bi dee nañu waxante dëgg Macky Sall pro gay la musul def benn tànk jéego buy buy wane ni moom bëggul góor jigéen musul def benn jéego buy tax ñu dindi góor jigéen Sénégal defu ci dara bu ñu bëggee keroog ñu voté ko loi d'habilitation ca ca kii ba ca assemblée nationale mais dañ dañ ko ko <coughs> bi tubaab ne dañ voté bëggee euh, euh, criminaliser viol mais dañ ko ko votel yeneen ak yeneen ñi ngi foofu. Mhm. lan moo tax mu mënul taxaw ci ñu ñu criminaliser jigéen Sénégal Mauritanie gi daf ko criminaliser. Mhm. donc kon tey bu ñu demee bëgg association góor jigéen yi man mii defal nañ ma ko association góor jigéen yi. mais est-ce aussi euh, c'est par rapport à la laïcité de l'État du Sénégal. waaw xam nga moom laay expliquer voilà est-ce que nekkul foofu mhm. la laïcité tricherie la affaire u naxaate la laïcité mooy sama gars yi nga xam man yàlla bu ma bokk ci ñoom mooy intellectuels yi entre guillemets les intellectuels malhonnêtes nga xam ne ñoom dañoo topp tubaab bi nekk ay taalibe tubaab bi bàyyi fi seen diine toppuñu christianisme toppuñu islam ñoom ñoo ñëw indi monde intellectuel bi genn wàll gi yëpp boo leen xool dañuy taxawaalu ci naanum sàngaraak sàcc ak topp ci boîte jël àllu réew mi di ko sàcc ak loolu lañ nekk ci dëkk ñoom ñooy intellectuels yi entre c'est que dama la bëgg expliquer pour nga comprendre bi tey benn affaire gis nga la laïcité chaque jour moo waxoo nee na la laïcité définition bi mooy la religion de ceux qui n'ont pas de religion mënuñu nekk ci dëkk boo xam ne nous sommes quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans cinq pour cent de chrétiens ñëpp gëm yàlla ba noppi ñu ne ñun dañuy jat jatan ñu ci ci ci ñoo ko accepté te loolu mbooloo boobu jug noonu loolu dañ koy xeex de pare guñu de góor jigéen kese taxu ñoo jug de dañuy jug ci lépp loo xamante ni day sàmm valeurs yi sàmm diine yi Sénégal mm-hmm. man sama discours boo ko xoolee maa ngi ko ci wax ma ni nañ fexe ba alxuraan bi dugg ci yi nañ fexe ba prostitution cagatu jigéen dootul joxeeti carte policier bi xool ko ne ko léegi demal légal nga dinañ fexe ba cest à góor jigéen ñi ngi faju naaj ci dëkk bi te man mënumaa dem faju te fayuma gis nañ nit ku ñëw jabaram ëmb ba jabar ji avorté parce que hôpitaux yi dañ ne duñ ko laal war a accouché ba xale bi di dellu di dellu hôpitaux yi ne ko laal te góor jigéen dañ koy woo di ko sarax pour mu ñëw faju ndax affaire subvention Macky Sall pro guerre la état du Sénégal dañuy dooleel góor jigéen nañ ko wax mu leer. waaw mais mais Karim man ku mel ni comme man euh, damay ne rejoindre seen euh, euh, combat. par mhm. rapport ak mbirum xeex lépp rek loo xam ne ñeel na wàllum valeur wala homosexualité. Mhm. mais dañoo nekk aussi si benn monde boo xam ne par rapport à la mondialisation. Mhm. ñu gis ne fu mu toll ni système capitaliste bi aussi dafa dem dominer bu baax réew yi. ñun on fait partie des pays les plus pauvres au ñu xam ne aussi suñu yi ñooñu nga xam ne tubaab yi mhm. entre guillemets comme ni leen tuddee. Mhm. ñoom dañoo légaliser li nga xam ne mooy góor jigéen seen dëkk. Mhm. te financement yi pour suñu état yi jóg. gis nga sax sommet boobu nga xam ne on l'avait organisé euh, keroog euh, au niveau de la France pour waxtaanee lépp rek loo xam ne ñeel na koom. pour li ko si réewu Afrique yi. tey est-ce que yéen ñi yaakaar ngeen ni seen xeex bi euh, benn côté du am lu mu yàqal aussi Sénégal par rapport aussi à ses financements. bu ñu wax financement. France par exemple ba nga xam fa la ñu organisé seen ci boobu mais attends mais France gilets jaunes yi kañ lañ ban dëkk instant yi Europe moo gën a dellu. ginnaaw France mais non la mooy euh, attends non non mais réalité yi lu ñu différente différente c'est-à-dire dama ni ni France instant yi nii ñoom ñoo ñu ëppi problème fuuf dañoo am lu leen doy bu bëgg tubay nañu waxante dëgg France français yi ñoo gën a sonn mais ñooñu ñoom ñoo ñuy financé aussi nañu waxante dëgg rek tey man xam nga laa bëgg wax. man mais au-delà de la France il y a les unis qui sont là. te gis nga xam nga ne dooma démocrate yi ñoom. Mhm. ñoom dañuy dooleel góor jigéen ñoom voilà. demal euh, demal nga xool euh, États-Unis par exemple. Mhm. Biden ñoom dañ ne fépp foo xamante ni drapeau drapeau Amérique dafay jug dañuy fexe ba drapeau LGBT topp ci. Mhm. mais dama ni ñoom yëkkati nañ drapeau LGBT en Amérique mais pourtant drapeau racisme am na foofu. te mosuma gis ñu yëkkati ko. drapeau racisme na Amérique seen problème yaakaar naa leneen la lu ndax Amérique góor jigéen am foofu léegi c'est quoi le problème ñu bëgg ñu imposer loo xam ne ñun du suñu valeur du suñu aada du suñu cosaan c'est que ñun foofu rek la ñuy waxee léegi nag gis nga actuellement àdduna bi toll na foo xamante ne mais ku amul souveraineté alimentaire sax. mais mais mais mais bitee bitee bitee dëkk bu am bi bitee émergence. Mhm. ah bu àndul bu àndul ak valeur ñun doyawuñ ko dara. yooyu ay xeer ko gën nañ waxante dëgg ko doo ñëw dëkku Serigne Touba. est ah mais xanaa gisoo keroog manifestation bi dama ne doo ñëw dëkku seen Touba non manifestation certes mais est-ce que vous êtes prêt à subir les conséquences. xaaral ma xaaral ma wax la rek non kuy xeex da ngay pare pour xeex sax nga xam ne yaa ngi xeex wala xeexloo. Mhm. dama ne la dama ne bitee dëkk boo xam ne am na pétrole am na am na uranium am na zircon am na fer am na or mënul développer parce que suñu njiiti ñoo nekk ay yaafus gëmuñu seen bopp.

góor jigéen ñi ñun tey bu fekkee ñoom dañ ne léegi dañuy bëgg dañuy porter plainte pour euh, ñu ñu ñu fexe ba euh, maanaam ñu def ay personnes non grata ñu def ko ay kilifa yu mel ni ay ñoom ay ñoom Aba Aba Ababacar Mbuub Cheikh Oumar Diagne ba ci Khalifa Tidiane ok ñun dañu war a mobiliser may wax toute la jeunesse sénégalaise une mobilisation forte ñu xool fépp foo xam ne ONG bu nekk fii di di boddi di dindi suñu xeet di dindi suñuy valeur ñu dem euh, ñu fexe ONG bi jóge fi mhm. ñu dem foofu noonu menacer leen wax leen nañ fi jógee jox leen délai peuple bi ñun Sénégal ñun ñoo ko moom ONG moomuñ ko suñu autorités yi moomuñ dëkk bi ñun ñoo leen fal ñu taxaw ferme ci diine bi nga xam ne ñun suñu diine yi loo xam ne suñu diine yi bëgg ko parce que du ñu taxaw di xool suñu doom yi ñu leen jàngal ngóor jigéen leen jàngal yoo xam ne yàq suñu ngor yàq suñu diine yàq suñu aada yàq suñu cosaan ONG yaa ngi fii ci dëkk bi ñu tas dañuy dem te ñuy dem ci au fin fin du Sénégal ibbi fa benn genre benn genre poste de santé dañ leen di jàppale ñaari lal ak benn kii toog fa di jàpp jigéen ñi di leen mais di def seen bopp yi di ko formaté duñ leen wax dindi suñu valeur yi jigéen ñi léegi ñu ci bari saytuñu ñu ci bari pour ñoom affaire yu doy waar yoo xam boo fi nekkee di ko wax du jeex léegi nag ñun ñooy comprendre xam ne religion dafa complet boo demee ci diine islam dafa complet nga dem ci beneen religion catholique ñoom tamit seen diine ñoom seen bopp complet na si ñoom ñu fexe ba jël suñuy valeur imposé ko suñu gouvernant yi waññaar loxo suñu njiiti ñu topp ñun li ñu gëm dem jëli njàngalem Serigne Touba njàngalem Baye Niass catholique yi dem jàngi catéchisme ñu fexe ba ñun ñun jar xale yi à ci suñuy valeur loolu moo am solo léegi nag euh, association euh, góor bu fi taxaw ne da fexe ba maanaam les les trucs kilifa yi nga xam maanaam ñiy contre homosexuel les homophobes la kërëb kërëb ñu dem ci association yi xam fu ne fan lañ nekk ñoom fexe ba képp koo xam ne tamit da nekk di défendre góor nga génn Sénégal association bu fi nekk défendre góor nga génn Sénégal mhm. président bu fi taxaw di wax Macky Sall su waxee ñu wax loo ko mu wax ci